wante kon nuñ mën a defee loole dinañ ko doole mu gën a baax léegi dinañ bàyyi Ousmane moom mu dem am nañ fii Aziz Wilane of course Aziz moom needed introduction bu bari Gambia bu Gambia Ports Authority doole seen programme bi ba léegi ah, balaa Aziz di ñëw ñu dem ak Mr Manka Mr Fabakary Manka moom moo nekk manager IT ak revenue control parce que yéen a ngi war a play Brikama léegi ñu jox ko moom mu wax waa Brikama mbaa di mandinkool saa mbaa mbee kontoon na mbafale welcome to fatou show mr manka sa nge bulay ni man nga kam moy lal fane diamu parce que programme ni nyingal ma di jandron al ba al fo bir kama ah am ko ya fo nyame mm-hmm. opes programme o nyen -hmm. nyen mo sinya woro nyawten kam menke -hmm. um pap juv nen ada sam ma na signa fo lot nol ba mm-hmm. ke kan -hmm. but programme o nyen amanka gpa dron netam yeah. banku be fengolam ba at the end of the day nkam men soto je nka dapansi student lol kunna menan ko be science ke kan mhm. university ñol kon na directeur ya fo ñame te karandingol tata fo mo keme anin fe melan ko nke sponsor university to mhm. e ka men defasi jaka da fo 10 million sabanin fe mhm. so ni o jube kon a manke ko men jipi ne me fendunde ya manke ka dunde jipi do na bare ka dunde mbele pour sama kamman na na na dingol barindingol mamarengol an order people men men be science ke kan karam mo mm -hmm. ay usma e wala fa ko kabita le dati fo saya tambita mo kemela la le men numa ko so ma ko ro nyi ka kenya di kal sa fele fal fa ngol le ka jibe dro ale adila non ay ka sa fero le ke mhm. committee le beje mhm. bawo eta no la banko no bela yo bar comité le beje melan ko nalle safero ke o comité ka jube le mm -hmm. e nyanta di la jumalel mm -hmm. ande bu ka jube kare munye silete kare munye silete mm -hmm. momo e, qualify momo qualify tare e criterial so de kamen lande e ka jube ko men nemme ne o sot rek mm -hmm. e nyanta wallal adila adola wallal so bir kama kolite o mun fole prier pare wasi bir kama de ngalo ne lafta pap juuf la bari bine ayda samba fana nate be nyinin kala lu dal mina lafta men ah, na pour moɓe fintina hana ma gabri kama durante ñim programme kono lafta be abe na men gabri kama na danda satol be na mhm. bon bele ko nga fanya men banko bel tenta programme nyen wa baraka so mba fala li all the best ni ala son tambe binale thank you ala mote mankela eh, jerejef ko kudi fabakari di manager IT ak revenue control di Gambia Port Authority mu ngee wax wa birkama parce que Pape Diouf moom birkama xam nañ macha allah fan foofu bi ay da ñëwee last time ñu ma doon laaj sax ne ma ndax du ñëw birkama ma ne leen si ñëw ma loolu ak ibu de te su ma ko ma ko yóbboo ibu ndur ma eh, léegi li ñoo def mooy ñu invite Wanka Mbafole Abaraka. So it is Aziz Sina. Aziz Wilan is the MC and promoter of the event, and Aziz has been working with the Gambia Ports, uh, Ports, Authority since inception, since the operation Promote Science Excellence in the Sciences started. Aziz, hmm. Uh, Aziz, welcome to Fatu Show. So, my fu ma ko gis na ma ne ko suma boos mu ne bu ma ko wax <laughs> ñoo njëkk a commencé di ñoom bi ñoo commencé ñun ñu ngi school farmata xalal day màgga waaw waaye xam nga boos bi moom foog mu nekk boos bi mun loo ko jàlla da nga ko mën a topp waaw mënu ma topp gisuloo ay su waxee rek mu ne suma mag Pape Diouf olof njaay ndox du topp paax <laughs> ah. waaye dëgg dëgg jamono ji ñu nii yéen a ngi ci kanam ñu ngi seen gannaaw di teete ba tey. yéen a a tax de yéen ibi yoon bi <laughs> di la nuyu Aziz. fay Fatmata bàyyi la nga nuyu ñuy seetaan. waaw Fatmata ma ah, kàddu gi rafet na maa ngi nuyu réewi Gambia. Mhm. Banjul ba Koyna. Mhm. Bakaw ba Gunjur Kung ba Amdalaay bàyyiwul kenn. Mhm. ci programme boo xam ne Gambia Port Authority ñoo wane seen yëngu-yëngu ak seen doole. ci jëmale njàng réew mi kanam yàgga di ko jàppale njiiti réew mi euh, di ko gërëm président bi di président euh, cheikh professeur alhaji docteur yahya AJJ Jammeh moo ko waxal boppam mu ne the sky is the limit bon fu amut fu mu em mhm. ah, njàngami science euh, soo ko seetee tey moo yóbbu àdduna si kanam am Gambia Port jóg ne ñoom tamit kenn du dem baleen ci ndimbal gi ñoo def ci wàllu jëm kanam yi njàng bi mhm. am ah, pour ndawi tey yeewu suba yeewu gis seen ay génte nekk digga réewi Gambia ñu ndamoo ay docteur mhm. ay ingénieurs ay pilot ay scientist mhm. soo ko limee fii dañoo fanaan am ah, li ma mun a wax rek mooy ci Gambia Port Authority yàlla na leen xooli askan wi fay amiin ngir ni ngeen déggee sa Jobaate wax ko mm, oos téeméeri doomi réew mi ah, ay waajur loxo jotuñ gannaaw mm. ñoom ñu gis ne dañ ko eggali ëllëg ndam li yëpp ñu séddoo ko kooku kenn mënu koo fekk mm. maa ngi wax réew mi yëpp ndéwénati mm-hmm. yal nañ ko fekkeen ay déggéen ndéwén di teeru suñ gan yi di Pape Diouf delloo ma démba ca lem sa jamono boobu su ma ci buggee dugg xool dina diis te si showbiz ak ci ambience ak ci music mm-hmm. ah, jottali xibaar gi am ah, soo duggee ci kamba gi nga gas nga gestu mm-hmm. ma fàttaliku démb pap ma téye ko indi ko ba ci kanami stage bi Independence Stadium mm-hmm. mu woy woy boo xam ne ñu ngi ko tuddee woon xiif am ah, saa yu ma ko gisee ma ne ko pap kañ nga dekkali xiif di dekkali ndaw goo xam ne ba ma ko njëkkee dégg Ah, mu dugg biir Jolof Siin Saalum Kajoor Bawol mu woy Saaraba am mhm. ah, suma xel dem si Pape Touré ay dañu ngeen di teeru Pape ñu ngeen di teeru kon léegi Pape su ma ak cabinet la xam nga léegi d'accord nga xam nga yi muy recall yii yëpp <laughs> ah, <laughs> euh, dem ba tax ñu naan tey mhm. te ñii dañu liggéey ci aar loo xam ne mhm. fi mu ne nii dañ leen a war di leen ñaanal ñu am fan wu gudd ak wér-gu-yaram mm-hmm. ndax dañoo yore bagage yi mm-hmm. waaw Aziz Wilane bu taxaw si state wax rek mm-hmm. baan sax mën na mën na bañ a yéeg moom na wax rek xol yëpp tooy gars yi après ñibbiwaat Aziz yàlla yàlla bu des fan amee ñu ñëpp ñu bokk ko Pape ah, Fatmata ma delsi waat ci li ñu fi indi waaw réewi Gambia ku fay yeewoo programme bi nga yëg ko yëgaloo ko jottalil ma xibaar yi ngir lan mhm. dërëm boo ci dugal njëriñ nga sa boppa jàppale nga ndawi tey kilifa opes mhm. njëriñ nga réew mi mhm. moo tax taxaw Gambia Port ngàcce ngalama du niñ ma jël ne kañu tabe woyof wabir Birkama ngee teg sax mënuñoo xaar de <laughs> waa Birkama seen <laughs> du pap Diouf rek a Samba ñoom ji ñoom jeli maa ama Pa Omar Diak ñëpp a ngi si biir Benjamin mhm. waa biir Kaamala ñu ngi ñëw mhm. ah, li ma dénk ko xale yi mooy ñoom Diixa ñoom Twin Sisters mhm. am xale yi bari nañ porte dina fàtte kenn dëgg la salaam ji clan maa toog dégg Mr Jiba muy borom këri porte ñu woy wàcca mu ne Abdou Aziz waxal ma xale yi ñëw ëllëg fii leen toll ñun fa lañ ko jëlee yóbbu mu dem kanam ah, programme bi ñu ngi sàkku ndimbal ci ñëpp. Mhm. bu kenn léegi programme bi. Mhm. first day bi mooy bu ëllëg bi. waaw mooy am Kairaba. gala bi waaw Kairaba yàgg nañoo di oote ay gala. Mhm. Fatmata gala gi duñ yërëm wax ji. <laughs> Gambia Ports organisation gala. up market banquet gala la ñu organise. loolu soo ma ko ma gëm ko. foo bokk rek xam naa ni mu soo ma ko waxee gom ko ñoom alaaji Thierno ñoom Ansu Jiba <laughs> ñoom yi bari nañ ah, gom naa ko am ah, ah. waxtu <laughs> dañ koo teg si yoon time bi eeg la dinañ teel a reer mm-hmm. xale yi dinañ teel a tëgga waaw Saara Ba xam nga dinañ dem ndax duñ dem ah dinañ dem de Aida suba xoo dem Saara Ba gastu Gambia fi mu nekk xale yi ndaw yi sax <laughs> waaw ñëpp ne bégee waaw ngoog Sara Ba agsi na ci biir Gambia dëgg la Fatmata saa yu nekk la neex neex na ma ak nu mun di demee <laughs> mhm. ak nu mun di mel dëgg la Sénégambia dafa sax pénc la mhm. Mhm. am ah, Sénégambia mooy Gambia Sénégal ñoo namp benn cuus benn meen mi ñoo ko nampa dëgg la mu jur Sénégambia di pénc mi penc mi soo demee démba fala maam yi daan daje di xelalante di xelli wante xalaat mhm. Mhm. moom leen toog nii mu ngi nii Gambia Port Authority moom leen toogee OPS mhm. mooy penc mi waaw te dama sàkku ndimbal ñëpp ajuma ëllëg samedi ñu teel a départ waaw jigéenu Gambie moom li ma bëgg ñu defal ma ëllëg mooy. Mhm. sanse gi du ma ko wax. waaw de si boobu moom xam nga bu comme d'habitude rek. li ma bëgg a pap ñu <laughs> defal ma ëllëg rek mooy ñu melaxal ma. waaw ci li ah. ma rib melax ba ma tooy. waaw melaxal déedéet kay. melaxal a ne suba dina neex waay melaxal léegi ay léegi kay Aziz hmm? sa artiste bi nag foog nga jox ko Aida parce que am nañu texte nag ñee dañ bugg a xam da mu ngee sëy xam nga tam foog ñu laajte ko <laughs> waaw di di loolu moom <laughs> waaw bëggu rëy la waaye tamit ah yi la de sa sista bi balaa moo dem sama sama mbokk gambien yi waaw yamuñu cukku duñu rof leen ci gay Aida <laughs> waaw Aida parce que xam nañ ne moom léegi bébé flight. Mhm. ñu wàcca ma gis ko ko teeru ko Pape kii moom reyam gi yànja na di buy solo te lu ne <laughs> Fatma tam ma